fii nag si daral bu tëngëj foo sànni say gër rek dal di gis gàtt yi nga xamante ni moo di yitteel borom kër gu ne ci jamono ji nga xamante ni benn ay bés rek moo dox suñu digganteeg tabaski bii kàddu yi lañu nangoo nag si jaaykat yi ñu fekk si biile bërëb daanaka lépp benn la la ñu xam ne rek moo di ne jafe na lool ñu gis ku leen ne ñaata si jamono jilee li la mën a wax daal xar yi kenn jëndul xar yi xar yaa ngi fii ñu waroon dem marché mënutu ñoo dem marché ndax jënd nañ seen xar ba pare mënuñoo déplacé wu client yi nangu ñoo jënd xari moom nar naa manqué manqué bu métti sax ndax dernier moment la nit ñi jógandoo bu ñu ñëwee ñu jëndoo xari mu jeex te bu ñu jëndee ñun mëntuñoo dellu. waaw ku si di jaay moom xaalisam da koy denc ndax mëntuwul jëlee xar ci àll ba ndax àll ba ay jafe-jafe yu métti moo fa boo fa jënd bala nga am oto rek problème man nga am ñaari fan ñetti fan barki dem bi ñu demee ren tar nañ fa ñetti fan mënuñu am oto te xar yaa ngi nii dañuy xont xont nañ bay bëgg a dee parce que perte daal lañ ciy am mais amuñ ci bénéfice ñoom ñëpp ñee nañ leen dañ xaw ma dañuy xaar xaru jama yi ñëw xaw ma lañ wax waaye am naa yaakaar ni moom fii xar ah, jama amu fi xar ñun ñoo jënd xar ñun ñooy dem àll ba jëlee xar yi jama amu fi xar kenn jëndul waaw xar yi ñu ngi fii ñu ngi sotti ngooñ ak paas rek doo gis benn client ñëwul da toog doo gis benn client da ngay sotti ripaas ak ngooñ rek boo xëyee nga ñibbi xaw ma dëkk bi xaw ma dëkk bi moo tax xaw ma lan la xam client yi xam ñëw guñ comme nu mu meloon daaw wala année année yi passé quoi bu dee ne ñoom jaaykat yi la nag am nañ jafe-jafe lool gis ku leen ne ñaata si benn si client yi nga xamante ni jot nañu fa yegg si ñoom nag lañu fekk si marché bi moo di ne njëgu xar yi le seer na ba jéggi dayo lool ba tax na jotee si doon lu jafe lool si jamono jii ah xaraa xar yu cher rek xar yi moom ah maa ngi wër daal instant yi nii ay xaru 170 mille ay sa ay xaru 190 mille laa fi ay 200 te loolu dafa cher moom moo tax maa ngi wër daal waaw par rapport ak daaw daaw moom mooy yomboon na ren nag mu xar moom dañu am na mais instant bi gisaguñ ko daal. waaw marché xar bi métti na méttul parce que aussi bu méttee mooy a jaay lu cher parce que aussi tamit cash bi moo métti parce que fii mënoo génnee cent cinquante ba deux cent mille francs li jënd xar parce que dëkk bi dafa métti waaw ñëpp yoruñu cash daal vraiment. ñoom jaaykat yi nag la ñu layoo seeraayu xar yi la de moo di xont gi jëm si dundal xar yi moo seer ba jéggi dayoo lool ba tax na man def leneen rek lu dul jaayee si les dañu yaakaar ne xar yi dañuy yomb te xar yi yombuñu ñoom dañuy déglu rajo bi rajo bi mu ngi wax loo am na nga ama xar te loolu amul mais ñoom da ngay jënd ci àll bi bu seer ñu ñëw fii duñ la jot sax li ngay jëndee te frais bi yaa ngi gis métti na ngooñ bi métti na koraay bi métti na ndox bi tamit noonu la lépp métti na tey moom dara yombut ci àll bi xar bi laa nga koy indi fii dafa seer ba pare dafa seer ba pare danga koy jënd ci àll ba paasal ko ñew fi di xont jënd xont jënd ndox jënd yow bo xese ba wacc fi lo def ya ngay fay xont bi gam mo ñu xaw a ray tuuti quoi waaw waaw waaw xont bi di gam da ser xont bi da ser lol da gëna yok sax waaw ngooñ yi ak euh, ripaas bi yëpp xam nga nit tamit day indi fi ni 70 mo bëgg har bu wara a jar 100 100000 wala bu wara a jar 150 fekk mom 70 la ñom ñi ne nak di way di xaar ay client japp ne fii rek tabaski bi jege danañ mën a jaay la nga xamante ni moom lañ fi si ay gàtt